jeexalee saa su ne euh, lëndi la ba jeudi mooy lu xew ci biir internet bi heure bu baax bi ngeen ñu duppee hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram euh, miin ngeen ñu ci réseau sociaux yi d'ailleurs euh, tey dinañ ci ab def ab taxaw seetlu man ak wax man ak Cheikh Diop waxtaan nañu ci jeexitalu journal bi ci li nga xamante ni actuellement moo lëmbee àddina ci benn réseau social bu bees la ñun nag ñu leen di wax ngeen bàyyi ñu xel ndaxte yëf yi ampleur bi mu jël nii. Euh, dafa mel ni daal euh, début yu ñoom Facebook ak ñoom Instagram ak yooyu quoi ndaxte gis nañ ni fii ak ay weer ndaxte amagul at ah, diggante bi ñu ko euh, créé ak léegi mu nga ñu ngi ko créé fële ci États-Unis ci atum 2020 bi ñu génn ci premier confinement bi loolu lañ leen duppee ci avril avril 2020 mu nekkoon mu nekk benn plateforme bu am solo dinañ ci yéey yàbbi nag ci kanam wax ci surtout laaj leen ci ba xam na yéen a ngi ci ndax déjà actuellement mi ngi commencé am ampleur te li ci gën a am solo dafa ñenn ñi nee nañ dafa sélectif ndaxte képp ku amul ab Store doo ko am Play Store disponible gul ci muy euh, Clubhouse leneen lii mooy pour euh, pourvoir rek la maanaam comme podcast maanaam euh, rajo libre la quoi voilà ay réunion yenn yi ñenn ñi sax léegi pour ay entrée dañuy def ñi koy commencé gagner de l'argent maanaam da ngay fay pour mën a bokk ci club club clubhouse yi par exemple ci yenn artistes yi bu ñuy def ay club house wala personnalité wala star yi pour ngeen bëgg a bokk ci yenn seen club house léegi da ngay fay di wax ni business bi déjà mi ngi mi ngi ci euh, commencé na tàmbali na naka lañ ci gagné euh, de l'argent ci kanam dinañ ci ñëw ak lii nga xam ne lu yees la te actuellement mi ngi lëmbee réseaux sociaux yi euh, tey mooy 2 mars 2020. 2 mars 2021 maanaam at ba fi Covid bi duggee ak léegi fii ci Sénégal ci fàttali li fi jot a xew bari na waaye tamit lépp yu ci bari information yi ci bari ci réseau sociaux yi la doon jàll gannaaw médias traditionnels yi ñëpp doon ko partagé mbirum Covid nag yëngal na àddina ba mu fàtt fii lu plus de 800 et quelques fii ci Sénégal euh, doomu aadama ñoo xam ñàkk ñàkk nañ ci seen bakkeen actuellement ñu ngi ci période ay vaccin gën a sensibiliser euh, nit ñi gën a ñaax. ñu respecté mesure barrière tàkk masque yi waaye aussi gën a ñaax aussi mag ñu ñu dem vacciné wu ji ndaxte foofu la àddina toll foofu la ñu toll ñun ci euh, Covid 19 bi nga xamante ni euh, information yi bari ñu ngi ko doon jotee ci réseaux sociaux yi ñun ñii ñëwoon nañ ci ci fake news yi bari na tamit information yi nga xam ne wéerul dafa ànd ak émission bi li xew ci biir internet bi doon ko doon partagé ci réseaux sociaux yi mais saa su ne dañ leen doon won ay ay plateforme wala ay moyens yoo xam ne mën ngeen a euh, expliquer wala mën ngeen a xam ba xam na information yi ñuy partagé ci mbirum Covid bi wér na wala wérul d'ailleurs ci réseaux sociaux yi Facebook jël ay matuwaay yu mat sëkk ci euh, plateforme boobu moom réseau social boobu Facebook ak Instagram ngir jéem a fexe euh, nit ñi léegi di bañ a euh, tasaare xibaar yi nga xam ne wérul ci mbirum vaccin yi réaction yi nag déjà bari na internet yi ñu commencé réagir heure bu baax bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram démb nag ñu ngi doon waxtaanee lu am solo léegi daal internet yi ñooy programme seen invité lundi prochain ndaxte lundi yi dañuy gën a jàpp ci promotion wu xale yi nga xamante ñu ngi ci TikTok bi di def lu am solo loo xamante ne dañ koy partagé saa su ne mais du rek fën bi am na ñoo xam ne ciy jàngale ay professeurs yi ngi ci ay médecins yi ngi ci des jeunes nouvelle génération yoo xam ne dañuy partagé seen ay information wala seen ay xam-xam ci TikTok bi euh, démb ci lañ lañu la ñu invité woon muy Rami partagé ko gis naa ni démb ak tey ñëpp dem ci euh, page TikTok am di ko suivre nii la euh, affaire bi léegi dona dona la quoi dañ leen di partagé ngeen ñuy partagé ñunu mi ngi noonu télévision Futur Média laal yokk la boo ko boo fi jaaree yëf yi gën a avancé di ko rami di ko jaajëfal di jaajëfal internet yi nga xam ne déjà ñu ngi commencé eh, def hashtag bi lancé challenge bi ku nekk naan éviter eh, leen ñu kii mu li muy def neex na ci TikTok bi mais du rek ñi nga xam ne ñooy imiter wala def musique beeg yooyu c'est bien mais am na ñeneen ñi nga xamante ne ay professeurs lañu enseignants ñeneen ñi nga xamante ne aussi ay médecins lañu jeune nouvelle génération ñeneen ñi nga xam ci métier yi nga xam ne d'habitude euh, da nga daan déplacé wu wala da nga dem ak feneen pour mën a jot ay explications yu wér léegi am nañu moyen wu téléphone portable yi smartphone yi euh, réseaux sociaux yi ñu ciy joxe ay information yu wér te wóor teg ko ci xam-xam ñooñu parfois mën nañu am possibilité ñu ñëw invité leen ñu partager aussi lu tax ñu choisir dem ci réseaux sociaux yi fi jamono toll ak seen métier. changer un euh, yëf yi ni mu daan demee loolu baax na ci loolu am na am na am na solo am na kenn koo xam ne déjà commencé nañ ñu ko plébiscité je sais pas ba xam na vidéo boobu mat na balaa euh, ñu ko ñu ko kii imité Pape Diouf noonu ak artistes yi ñoom Youssou Ndour am na kenn koo xamante ni ñëpp a koy partagé di ñu ci di ñu ci tagee naan ñu pourquoi pas kii mënuñu ko invité ci euh, plateau bi bien sûr bu gisee vidéo bi ñu xam ni lundi prochain mën na invitation bi nii lay demee wax nañ ko émission bi c'est virtuel ñun ak yéen la da ngeen ni euh, partager seen ay commentaires ñun tamit ñu partager ko invité sax boo bëgg def leen ko def challenge bi def hashtag bi sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram chaîne YouTube bi actuellement nous sommes en live en live sur aussi ngeen partager ñun tamit ñu daal di koy partager daal di demander ko en direct invitation bi kii nag xaw ma sax turam dama gis ci subaak léegi wala démb ak tey ñëpp di ñu ko partager bari na ñu muy imité acca je pense bien mën nañu dictel vidéo bi ñu ñëwaat. yande bo fiya tigwa yande bo fiya tigwa yeah mi ngi noonu kon invitation mi ngi noonu en direct en live lañ koy invité su ko neexee lundi prochain mu ñëw wala beneen lundi nañ ko programmer na commenter na poster nañu euh, envoyé message wala mu euh, voilà am na moyen yu facile yoo xam ne mën nañu jot ak hashtag bi di sunu net muy Facebook Twitter wala Instagram leneen li démb nag ñu ngi doon waxtaanee téléphone portable dafa yëngal àddina lépp nag ci téléphone portable lay jaar sànq ba tey ñu ngi wax ci plateforme yu bees yi ñu ngi wax ci euh, réseaux sociaux yi léegi nag daanaka ñëpp kenn connecté tul ak sa. machine très rarement léegi ku nekk sa smartphone la yor smartphone fii la lépp di xewee tegoon nañ fi dem benn euh, son boo xam ne yu Ndour du na ko yaa neuf neuf wala dix ans derrière boo xam ne wax na ci fii jamono toll léegi ak suñu téléphone portable yi démb bañ ko tegee dafa euh, jooyloo xolu mag ñu bari wala mag ñu bari naan ñu tey lii indiwaatal ñu ko Youssou Ndour wax na lépp ci fi jamono tollu tey ak téléphone portable ñu dégtal leen ko quelques minutes daal di ñëw nag yaatal li nga xam ne lañ leen dégtal ci programme voilà téléphone téléphone da yëngal na àddina defal ñu euh, commentaire seen téléphone portable yi nouvelle génération ancienne génération téléphone fa mu jugee indi woon nañ fi benn image bu yéeme boo xam ne lay wax euh, téléphone portable yi jamono yi ba muy doog a débuté yu gudd yu mag yi dañ ci indiwaat image boobu lii nag euh, internet yi bari nañ ci ciy réagir <laughs> hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram am na ku joxe benn réponse boo xamante ne man convaincre na ma jàpp naa ni année yi mu joxe noonu la muy kii di ko jaajëfal ci gis nga commentaire bi joxe na exacte bi nga xamante ni ci lañ euh, doon kiiwee annuaires yi année minus année 80 yi la effectivement 90 euh, ba lii nag annuaire 86 la annuaires yi lañ daan xoolee numéro téléphone kër yeeg euh, numéro téléphone fixe yi ci ak lieu de travail yi nga xamante ni ku nekk da nga amul woon laajte jox ma sa numéro quoi jamono yooyu da ngay ñëw ci annuaire bi directement ngay dem xool numéro téléphone fixe kër jàmbur jox la zone bi exact quartier bi dëkk bi numéro villa bi. nga dem xool pour mën a woote foofu bu njëkk ba nii la woon commentaire yi bari na ñi ci commenté bari na hashtag bi sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram ñoom ñëpp di participer ci émission bi lii daf leen doon fàttali jamono année 80 yi quoi am na keneen ku posé benn question bi effectivement léegi la posté photom bi jaajëfal la euh, Apulaay ni nga réactivé yow euh, réalisateur connecté kii dafay laajte fii ban fan la ci Ndakaaru ñu partagé ko man xaw ma peut-être internet yi nañ ko xam ñu partagé ndaxte lii première partie bi moom dañ koy réserver mag ñi ñu fàttaliku seen jamono mais surtout aussi jàng ci lu bari hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram actuellement nous sommes en live gis ngeen commentaire yi ku nekk ngi commenter di joxe sa euh, li nga xamante ni mooy euh, commentaire ci question bi ñu posé loolu am na solo mais euh, Ablaye wanaat leen question bi gars yi dafa mel ni xamuñu gisuñu ko bu baax nee na ñu permettre ñu mën a def seen xool localiser bu baax quoi voilà localiser bu baax fii fan la ci Ndakaaru Euh, gis naa Jam Gajaga Baye Gora gis naa leen seen commentaires yi commentaires yi bari na actuellement El Maestro Cissé di leen jaajëfal yéen internautes yi question bi nag benn internaute ko posé d'habitude comme ni muy demee ci émission bi bi sunu net la c'est interactive da ngeen di commenter ñun ñu partager seen ay questions moo tax d'ailleurs ñu ngi wax mbirum téléphone portable yi am benn internaute démb bu posté benn maamam mi am téléphone portable iPhone sax la may xool ambiance bi dafa ànd ak li xew ci biir internet bi. ting ting ting ting ting ting ting ting ting ay ay fan waay ay fan waay maire yi bu ñu amee comme que dañuy euh, voilà seen jamono du ay jamono ay euh, Apple ak iPhone ak yooyu bu ñu amee iPhone dañuy fecc effectivement euh, fi àddina toll ak téléphone portable li ñuy doxee toujours ñu ngi ci lancé téléphone portable diggante démb ak tey li jot ci liy xew ci biir internet bi léegi nag ñu démarré ak xibaar yi am na ay vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy partagé d'ailleurs depuis démb ci mbirum autoroute à péage bi loolu c'est bien ñu won ko parce que ay alerte la yoo xam koy def d'ailleurs ñu ngi ko récupéré ci page yu lutte contre l'indiscipline des mu nekk xamante lu yees la euh, ñëpp di ko partage ci réseaux sociaux yi mais mbirum autoroute bi lii nag euh, juróon na fi ay jëyee moo tax image yi dafay baax ñu koy partage ngir ñi nga xamante ne ñooy autorités yi ñi nga xam ne ay responsable la ñu ñu gérer li éviter euh, ñi nga xamante ne mooy animaux yi di traverser autoroute bi ndax mën na créer jëyee je pense mën ngeen ci seetaan vidéo bi ñu ñëwaat di wax ni internet yee koy partagé loolu tamit dafa bokk ci émission bi Thank you. voilà ñi ngi jëlee image yooyu ci page euh, Facebook bu lutte contre l'indiscipline de Sénégalais loolu nag page bu am solo di wan ay alerte la di partager yenn yi nga xamante ni jaaduwul te à chaque fois solution daf ciy jik daf ciy jub euh, di leen jaajëfal mais surtout lii dafa juróon ay jéyee dafa juróon ay accident ci euh, autoroute à péage bi à un certain moment nag amatul woon kenn gisatu ko woon mais léegi dañu seet ni yëf yi dafa ñëwaat te lii nekk na lu am solo loo xam ne autorités yeeg responsable yi nañ ci jël ay matuwaay ba leneen dinañ ci fekk ndaxte wóorul lii moom kenn waxatu ko donc euh, c'est bien ñu ñu ñu ñuy gis image yi ñu koy partage ci réseaux sociaux yi réseaux tamit lii da koy daf ci am solo gars yi di partage yenn vidéo yi nga xam ni donte lu am la gannaaw vérification day fësal ne lu am la ndaxte parfois gars yi partage vidéo yoo xamante ni dañuy changer contexte bi quoi wala yàgg na wala mu ngi noonu ak yooyu chaque jour dañ leen di fësal di leen jox ay euh, explication yi nga xamante ni dina permettre ngeen xàmmee bu baax balaa ngeen a lenn ci réseaux sociaux yi d' ailleurs euh, réaction yi bari na internautes yi am na benn question bu internaute posé léegi nii lii je pense que bokkul woon sax ci suñu conducteur mais lii mën nañ ko expliquer mu ne nan la ñuy télécharger benn vidéo euh, sur YouTube wala sur Facebook vidéo bu ñuy télécharger sur Facebook c'est vrai que ñi am problème bi euh, bari na ñi am problème mu télécharger video sur YouTube bari na euh, mën nañ leen baaxee benn euh, application wala benn ñu télécharger ko mën na nekk mais ñu bàyyi ba xam ndax am na yeneen internet yu am yeneen plateforme wala application yoo xam ne mën nañ ko conseiller internet bi ci question bi nga xam ne posé na ko wax naa ko émission bi ñu ak yéen la du man rek may wax yéen ñii mën ngeen am ay question ay réponses yoo xam ne dina soxal téléspectateur bi balaa ñoo jeexal dinañ ci ñëw tontu ko télécharger benn application bu simple boo xam ni euh, suba dinañ ko ñëw gën ko gën leen ko détailler mais mën na ko télécharger pour le moment dina dina ko permettre mu mën a télécharger lii di vidéo yi jàll ci Facebook am di télécharger lii di vidéo yi nga xamante ni mooy jàll ci chaîne YouTube am te loolu nekk na lu am solo leneen li mooy euh, indiwaatal question bi parce que dafa mel ni internet yi gisuñu ko te ñu ngi commentaire nii euh, question bi am na solo je pense Abdoulaye mën nga indiwaat question bi internet yi xool ko bu baax ñu préparer plateforme bi mën naa ko wax léegi en attendant réalisateur bi di pare ma wax leen plateforme bi ñuy télé euh, application bi ñuy télécharger pour mën a euh, jaare fa di télécharger vidéo yi ngeen di gis muy défilé noonu parfois mu intéressé leen par exemple ngeen bëgg ko euh, def ay statut WhatsApp te loolu am na solo leneen li comme démb ni ñu leen ko annoncé woon lii lu am solo la loo xamante ne dafa xew actuellement mooy mbirum faux compte yi surtout ñenn ñi dañuy créer ay page Facebook yi nga xam ni fesul euh, amul wala nekkul lu dëgg di ko wax mag ñi nga xam ne parfois xamuñu dara ci téléphone wala xamuñu dara ci réseaux sociaux yi naan leen mankat euh, ñun ñooy fondation Marème Faye Sall dañu leen octroyé maanaam jox nañ leen benn euh, koppar yoo xam ne dañ ko fi dajale pour dimbale nit ñi 800000 francs CFA wala 400000 jot nañ ci ay messages yu ci nekk ñu ne ñu alerter nit ñi que ni surtout mag ñi euh, ñu def ndànk que ni du euh, am fondation bi je pense bien euh, première dame joxe woon na fi benn explication bu simple fondation bi ni ñuy doxee. ak ni ñuy doxalee ñoom nekk ñu ci réseaux sociaux yi fësaluñu wala du ñuy contacter nit ñi ci réseaux sociaux yi loolu nag baax nañu ñu koy fësal di ko wax téléspectateurs yi internautes yi mais surtout mag ñi ñuy seetaan ndaxte voilà ñu ci mel ni sama ñoom yaay dañuy bëgg xaalis dañ leen di woo téléphone rek ne leen acca yéen la ñu euh, jox euh, am ngeen fii benn prêt wu 800000. am dañuy bëgg xaalis dañuy seen xel yi ci saa si day dem ci 800000 yi daan ne yee fi mu ne nii moom <laughs> sama banque gi jeex na ñu def ndànk ndaxte fondation yeeg yi nga xamante ni euh, noonu la ñuy doxalee je pense que dañu leen di expliquer comme ni ngeen koy gisee noonu ci texte bi ba ñuy naan dafa am benn banque bu ñu leen booleel am na benn banque sax bu ñu ci cité. dinañ ko vérifier ba mu leer ñuy doo ko ñëw fësal la mais en tout cas ñuy def ndànk ci nit ñi leen di woo nan leen ay banque diw la ñu am na luñ fi luñ fi def loo xamante ni pour euh, fondation Marème Faye Sall ñu def ci ndànk surtout bu jaaree ci réseaux sociaux yi nekk na lu am solo mag ñi gën ko xam ak euh, maire yeeg paa yi nga xamante ne ñu ñuy suivre actuellement ndaw ñi moom xam naa ni arnaque bi bari na mais am na beneen façon bu ñuy arnaquer ñii di ndaw ñi ci réseaux sociaux yi mais surtout ci ñi nga xamante ni ñooy wut liggéey d'habitude dañuy créer ay page naan leen page la ñu def benn entreprise bu mag ne leen day recruter ñii def nañ ko Carrefour ne day recruter ñu ne benn lien baa ngi nii nga dugg foofu joxe fa sa données personnelles yépp ñooñu nag ay arnaque la maanaam dañuy nax ñi nga xamante ne ñëw liggéey récupérer seen données yi après di ko jariñoo pour leneen d'ailleurs ñoo tax ñu interroger kii di Abdoulaye Ly xam-xamam màcc ci euh, mbirum TIC yi mais surtout ak euh, naka la ñuy vérifier yenn information yeeg euh, xam li wér ak lu wérul jox nañ ci ay explications yoo xam ne dal na xel mais surtout dina gën a intéressé ndaw ñi ñu xool bu baax ci wutum liggéey gi ci réseaux sociaux yi yan la ñu gën a mën a fiyewu ak yan page la ñuy mën a gën a jàpp ni ñooy page yu wér. ñu gis ne jamono ji internet dafa am lu ko commencé lëmbe maanaam wàllum féeg feeg ci lépp nag c'est tout à fait normal parce que ak la prolifération de sites internet ak réseau sociaux yi doole bu mu commencé am ci adduna bii nii tey jii nii lépp luy wàllum xibaar wàllum information ak lu mu munti doon ci biir réseaux sociaux yi lañ koy gis muy wàllu commerce en ligne muy wàllum offre d'emploi muy wàllum information en ligne lépp lu waay soxla rek dañ koo jël rek duggal ko actuellement li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi juggee taxaw ñoom seen wàllu bopp créer ay méthodes yi nga xamante ni c'est pour escroquer les gens c'est pour arnaquer les gens si si li nga xamante ni moom mooy réseaux sociaux yooyu d'ailleurs c'est des branches qui existent en cybercriminalité ñu koy woowee cyberescroquerie ak cyberarnaque ñi nga xamante ni nag actuellement ñooy chômeurs yi di wut liggéey ñoom dañ ciy dundu lu tar jamono yi ñu met pourquoi parce que ils sont confrontés ak li nga xamante ni mooy ay fake offre d' emploi ay fausses offres emploi yi nga xamante ni dañ koy jaarale ci internet souvent ils ont même du mal à voir est ce que offre d' bi c' est vrai est ce que offre d' bi c' est c' est pas vrai loolu nag dafay laaj nga am benn vigilance parce que je rappelle que ni ngay demee di postuler ci site yooyu noonu noonu la kër bi di demee di sàcc ay données personnelles say données personnel données personnelles yooyu muy sàcc moo koy permettre mu préciser li nga xamante ni moom mooy arnaque bi wala escroquerie bi nu mu koy préciser parce que tey soo dugalee sa mail moom mu ñëw il récupère l' adresse mail. automatiquement mun na la defal benn offre sur bi nga xamante ni ça te fera moom la ñuy woowee les offres alléchantes offre yi nga xamante ni un chômeur bu ko gisee dafay rêver donc def ci oto def ci xaalis bu bëri et tout donc ba pare envoyé la ko ci sa mail et je rappelle que un hacker ou bien un arnaqueur hacker ça c'est trop dit un arnaqueur ou bien un escroqueur am na possibilité usurper adresse e-mailu société am na possibilité usurper adresse personnelle une personne lambda comme moi c'est des outils qui existent sur internet qui permettent nga ñu usurper tey abdoulaye arobase tfm point com tu as la possibilité d' envoyer un mail à partir de semaine la là maintenant nag kii jot mail bi moom mooy def attention parce que souvent ci kaw fi nga xamante ni ci la ñu bind adresse yi gars yi dinañ fa def benn genre cadenas bu tijjee pour te dire que mail bi c' est pas certifié c' pas vérifié mais ñu bëri dañuy am regard critique foofu pour di vérifier loolu noonu moo tax ñu ne il faut ñuy moytu mail yi beneen bi mooy souvent dañuy jël seen ay numéro de téléphone di leen woo di leen def ay proposition souvent proposition bu demee ba neex sax ba nga d'accord ñoom ils vont te demander d'envoyer de l'argent fan la ci àdduna bi ngay wut liggéey ñu lay laaj xaalis déjà lool sa son pas rond benn beneen bi dinañ dem ba di la laaj say information personnel lu mel ni sa clé RIB banque lu mel ni sa compte bancaire lool c'est pour permettre après plus tard ñu def ay sale besoin jëm ci wàllu woowee moo tax souvent dañu naan il faut ñu méfier wu ci offre yi nga xamante ni c'est des offres trop alléchantes parce que offre yooyu noonu en réalité c'est pas des offres qui existent bi nga bañ a benn quelconque somme d'argent ki nga xamante ni moom mooy soi-disant employeur beneen bi ne pas répondre à ces offres d'emploi non solicité mooy offre d'emploi yi nga xam souvent dañuy gis ne kenn solicité wu ko nga dem foofu di dem aussi beneen bi ngay lire attentivement document yi nga xamante ni avant ngay apposer sa signature c'est-à-dire lii c'est niveau nga lire ko attentivement xam ndax est-ce que baax na parce que souvent ci document yooyu dina am benn genre piège bu ciy lalu bu lay permettre nga xam ne lii baax na wala baaxul nga bañ a fournir li nga xamante ni mooy say données personnelles parce que données personnelles yi ëllëg mun na la jural ay loraange beneen bi mujj mooy a chaque fois boo gisee offre d'emploi ci benn site li ngay def mooy n'hésite pas à contacter le site am na ay yu fi nekk c'est des sites d'annonce nga woo site bi moom mu vérifier la authenticité li nga xamante ni moom mooy offre d'emploi boobu su fekkee si sur Facebook fais des enquêtes Essaie de voir qui est l'administrateur du groupe tu l'appelles pour lui demander. jaajëf Abdoulaye lii ci explication yi nga xamante ni simple na mais surtout leer na je pense que ñi nga xamante ni ay ndaw la ñu nekk ci wutum liggéey ci réseaux sociaux yeeg internet yi explication yi dina permettre ñu gën a ubbi seen bët ndaxte li mu wax dafa simple euh, nañuy vérifier bu baax surtout nañuy am toujours di ñaaw njort. suñu numéro téléphone balaa ñu koy joxe nañ ko xam mais surtout leneen li nga xamante ne je pense que xel rek mën na ko nangu mooy euh, di wut liggéey ba pare ñu lay demander xaalis lépp li nga xamante ni ci internet bi dañ la ciy demander xaalis na ci def ndànk loolu euh, message la bu am solo et bu fekkee am nga nga gën a vigilant surtout ci mbirum sécurité lien yi ci kaw toujours site d'information yi da ngeen koy xool bu baax ba ñu mën leen identifier site bi nga xamante ne moo baax moo crédible c'est important ndaxte crédibilité boobu dina tax ngeen gën a xam aussi ba xam na c'est fiable ou pas ndaxte dafa bari ñi nga xamante ne ay fausse offre d'emploi yoo xam ne dañ koy partager ci réseaux sociaux yi mais surtout ñuy jël mbubboo turu entreprise bu mag boo xamante ne dina attirer ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi wala ñi nga xamante ne ñoo actuellement ñoo nekk ci recherche d'emploi te dafa bari lool ci réseaux sociaux yi ñuy def ndànk balaa ñoo partage suñuy données personnelles Abdoulaye lii di ko jaajëfal xam-xamam màcc lool ci mbirum sécurité ak TIC ak euh, fii àddina toll ci mbirum euh, internet yeeg réseaux sociaux yi di ko jaajëfal xam naa ni moom dinañ ko recevoir fii mu jox ñu yeneen astuce wala expliquer ñu ngir ndaw ñu gën a comprendre di ko jaajëfal ci explication yi nga xam ne am na ko ci leneen li Abdoulaye euh, fast track 30 minutes la non stop yoo xamante ni li xew ci biir internet bi bu baax bi dañuy balaa ñoo waxtaanee clubhouse mën nañ ko renvoyer ba suba question internet bi li mu ko jox jox euh, application bi mu télécharger ak ñii di internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak ñii nekk seen télévision heure bi di ñu seetaan. am na euh, application bu simple je pense Apple yi li ma la envoyé sànq mën nga ko partager des des manag des manager bi. Euh, lu efficace la te simple mën nga ko télécharger dina permettre ngay mën a télécharger vidéo YouTube yi ak yi nga xamante ni mooy jàll ci euh, Facebook yi leen di intéressé intéressé te di nga ko télécharger mu ànd ak qualité bii day ménager comme koy bindee nii euh, lii am na solo boo ko télécharger di nga ko dina permettre nga mën a Euh, télécharger vidéo yi jàll en live sur Facebook d'habitude Facebook video yi fay nekk doo ko mën a télécharger da nga koy jël boo télécharger plateforme bi boo ciy duggee suba dañ leen expliquer boo ci duggee nan nan ngay def ba mën a Euh, am vidéo yi nga xamante ni Android wóoruma ba xam ndax Android nag dina ko am essayé ma ko ak Android mais ak euh, App Store laa ko essayé mi ngi jàll ak Android peut di d'ici demee incha allah dinaa ci ñëw ba xam waa Android dinañ ko am ndax yu ci bari nag gars yi dañuy segg léegi ko waa je sais pas pourquoi xam naa boroom xam-xam dina ci ñëw leeral ñu ko bu internet bi defee benn test aussi ci Android mën na commenter en live actuellement sur Facebook ñu partagé ndaxte lii am na solo mais des euh, des des managers bi am na solo te gis naa ni. gars yu bëri moom la ñuy utiliser di télécharger efficacement euh, vidéo yi nga xam ñu ngi koy partager sur Facebook dina baax sax ci ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci mbirum média yeeg journalistes yi fi jamono toll gannaaw boo vérifier ba pare mën nga télécharger lii bàyyi ko sa téléphone ngir yenn vidéo yi en temps réel boo nekkee à la bourre comme ça journal benn information bu am solo ñu koy partager ci réseaux sociaux yi mën nga ko jël dugal ko gaaw vite c'est benn astuce la boo xam dañ koy partagé nii la wax naa ko émission bi comme cours <laughs> ñëpp dañ ko koy partagé surtout plateforme yeeg yenn yi ci ba dañuy boole utile ak agréable dafa ànd ak li xew ci biir internet bi di leen jaajëfal di jaajëfal bu baax aussi jili CSB moom mi sponsorisé rubrique bi di kii kan la wala lii lan la démb amul woon waaye am na ku fi bàyyoon depuis jeudi commentaire yi bari na jili CSB ma nga nekk rond point cité kër góor ko jaajëfal d'ailleurs euh, ki ñu choisiroon fois dem na jëli lëwoom partagé ko ak jili def photom daal di koy partagé je pense que photo bi pare na Apulaay numéro téléphone ji li moo nekk noonu 33 822 47 00 00 33 822 47 00 euh, ma nga nekk rond-point cité Kër Góor gi lépp loo leen am euh, téléphone matériel électroménager mooy ay Samsung Fold bi S21 bi yëpp mu ngi foofu ci jili di ko jaajëfal ci kóolute gi mais surtout euh, confiance bi mu jox li xew ci biir internet bi émission bi nga xamante ne ndaw ñëpp a ngi koy suivre sur les réseaux sociaux mag ñi aussi ñu ngi koy suivre ci seen kër yi heure bi ndax ñu bari dalañ koy jàngal voilà kii lañ fi indi woon depuis jeudi mu nekk loo xamante ni nag. internet yëpp gis naa ni euh, moom nag d'ailleurs moo fi gën a Roger Mendy mi nga xamante ni international sénégalais juddu atum depuis 1960 ñëpp xàmmee ko ci jaloore yi mu def année 80 yi euh, Sénégal 92 moom Roger Mendy défenseur bu mag bi nga xamante ni actuellement ñenn ñi sax dañ koy tëkkaleeg Kalidou Koulibaly mi xew ci jamono fi mu ne. moom sax day revendiquer ne moom du moroomu Kalidou dama koy tooñ sama grand Roger Mendy yàlla yàlla guddal fanam gis naa ni ndaw ñu bari xàmmee nañ ko surtout ci jamono yam ci tollee nag année 80 yi Roger Mendy euh, nekk ku ñu respecté fii ci réew mi international bu mag bi nekk koo xamante ni jaar na ci club yu bari mais surtout euh, ci année entre 79 95 équipe nationale du Sénégal champion de France en Euh, en 99 moom Roger Mendy nekk ku ñu respecté démb moom lañ indi image yu démbam ak tey ba xam ndax ndaw ñi xàmmee nañ ko kii kan la bu bees bi nag dama lañ koy bàyyi du ma wax dara ñu ngi ci premier mars de 2 mars waaw mois de la femme mooy weeru jigéen ñi ñu gën leen fonk ñooy suñu yaay ñooy suñu lépp moo tax weer bi na xam naa jigéen ñu bari ñi fi marqué histoire àddina sax laay wax du ma wax Sénégal rek dinañ ëpp lu ñuy ñëw seen image yu démb ak tey def leen hashtag bi suñu net muy Facebook Twitter wala Instagram ngeen commentaire kii kan la peut-être ñu choisir ci kenn yóbbu ko ci jili jili CSB nekk rond point cité kër góor gi app mën nga leen won euh, téléspectateurs ak internet yi kii ñu choisiroon la dernière fois mu dem ci jili je pense que photo bi disponible na voilà euh, kon nañu bàyyi ba suba te pourtant jili teel nañu ko envoyé sax mais am na jafe-jafe yi mais jili demee incha allah dinañ leen wanal euh, ki demoon jëli lowam ci jii jili photo wu partagé ko ñun tamit ñu daal di koy partagé incha allah suba euh, ñu daal di partagé loolu nga xamante ni am na solo ci euh, rubrique kii kan la wala lii lan la indiwaatal image bi internet yaa ngi koy demandé ngir ñu mën a familiariser wu wala xool bu baax photo parce que ñoom dañuy def capture ah, dañ ko daal di posté ci seen compte yëpp ci plateforme yëpp muy Facebook muy Twitter muy Instagram ki kan la euh, Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi sunu net la ngeen postal ñu nga ngeen def biographie am gis naa internet yi déjà di commencé joxe réponse yi wala euh, réponse yi ñu jàpp ni ki nekk ci photo bi moom la ngeen partagé ko boole leen ci ngeen def ci biographie ndax ñun suba di dinañ ci ñëw peut-être ñu choisir kenn yóbbu ko ci jili CSB nekk rond point cité kër góor gi di leen jaajëfal doon jaajëfal euh, bi ki ko jiite di euh, mag yi ñoom aji ñi nga xam ne ñoon ajaa ñi ñu doon jàpp ci liggéey bi ak euh, équipe bi yëpp ah di leen jaajëfal ci li xew ci biir internet bi ni ngeen ci jàppee ba tax ñi actuellement internet yi wala téléspectateurs yi ci bari mën ñu suivre en temps réel sur les réseaux sociaux di suivre di béggee bu baax Apulaay ak ñoom Youssou mi nga xamante ni ñoo doon réaliser ci réalisation bi di leen jaajëfal jox leen dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi